auzu billahi min seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala asrafil anbiyaay wal mursalin seydina muhammadin wa ala alihi wa sahbil ajmain mbokk jullit yi mbokk internet yëpp ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di leen baal àq di leen baalu àq di leen ñaanal yàlla jàmm di ko sàkku ci yéen di leen ñaanal yàlla mucc ak mucc la te di ko sàkku ci yéen bu baax a baax a baax a baax waaw tey nag ñu ñëwoon ak yéen indi loolu leen secret boo xam ne secret bu doy waar la secret secret boo xam ne la képp koo xam ne def nga ko incha allahu rabbi li nga bëgg patax nga def ko incha allahu da yàlla dana la ko defal. tey nag secret bi ñu leen indiloon comme ni ngeen ko gisee dafa nekk secret boo xam ne ñi ngi ko liggéey ci ñeenti saar saar bi nga xam ne moo njëkk muy fatiha ubbi alxuraan ak ñetti saar yi nga xam ne moo tëj alquran maanaam mooy nekk ci njeexantale alquran gi secret bi nag bala ñu leen a wax lan la dañ leen di wax rek na leen képp koo xam ne bëgg nga ñoo jot mën nga ñoo oo ju plus 221 77 286 38 79 plus 221 77 286 38 79 di leen wax ne du ñàkk ngeen gis yenn ci suñuy vidéo yeneen i nit di ko dugal waaye nag joxewuñ ci ndigal waaye itam aayewuñ ko lu dul koo xam ne fas yéene na def ci ñaaw ñaawteef képp koo xam ne vidéo bi ngay seetaan ba jël ko dugalaat ko jubluwu ci dara dul man nga secret bi man nga koo bindal nit boo ko defee nit ku la oo nga liggéeyal ko la nga ko liggéeyal ñu ngi lay ñaanal yàlla na ci yàlla def barke waaye nag di wax ne képp koo xam ne nan cee def ñaawteef li nga ci bëgg yàlla bu ko yàlla may secret bi nga xam ne nag moom lañ leen indi indiloon tey comme li leen ko waxee nga xam ne ñu ngi ko liggéey ci suratul fatiha suratul ixlaas suratul falaxe ak suratul naas yi comme ni ngeen ko gisee mu nekk secret boo xam ne secret bu doyuwaar la bu am solo lool ci wàllu kiis ci wàllu ku am ndaw luy jàng yow mi nga xam ne danga am sa doom moo xam mu nekk góor wala mu nekk jigéen muy jàng xelam duñ wax ne xelam naqadi waaye xelam jotun jotundagut ci njàng mi xelam nekkagut ci njàng mi secret bii pour yow la képp koo xam ne am nga doom juy jàng wala képp koo xam ne yaa ngi jàng waaye sa xel takk daf laa jafe na nga def secret bi incha allahu rabbihi yàlla dina la may tawféex ci li nga xam ne maanaam moom ngay jàng incha rabbi rabbihi secret bi pour nga def ko lii njëriñ li li tax ñu indi ko mooy ñu bëri dañuy bàyyi ba examen di waaj jot ñu ñuy oo ñuy wax naan dañoo bëgg ci wàllu examen yi dara man li may wax sama njaboot laay wax ñëpp ku bëgg a dégg baax na ku bëggut a dégg baax na mooy exeme saali examen boo ci nekkee moo xam li ko daggee CM2 BFM bac formation booy def am si examen lépp looy mën a def concours lépp loo mën a def lii lii njëkk ci secret bi njëkk mooy nga jàng ba xam li la war a laaj boo jàngee lañ la jàngloo ba noppi soogay soog di ut ñaan nag ngir def ci ngir yàlla musal la ndax léegoo-léeg dana gis koo xam ne dana jàng lool bu toogee ci taabal dafay fàtte da nga gis koo xam ne dana jàng lool waaye bu toogee ci taabal dafay tiit parce que dafa am ñoo xam ne dañoo man bis ci examen am ñoo xam ne mënuñ bis da gis koo xam ne fa mu nekk di jàng sulaar lay doon boo xam ne kenn faalewu ko daanaka bu léegoo-léeg dana def devoir ñeenti devoir du am moyen benn nga gis ko nga gis ko examen jot maanaam mu nekk doomu aadama boo xam ne dafay bokk ci ñu jiitu te moonte daawul jàng sax li waral loolu mooy dafa am ñu man bis man man bis mooy lan man bisi examen léegoo-léeg mën ngaa gis koo xam ne jàngul dara waaye lam jàng as tuut mooy ñëw ci examen ba mu boole kook ñàkk tiit mu boole kook ñàkk jàppee examen bi dara ndax examen ñaari ñi koy jàppee dara di ko naw ñëpp fu ñu toog examen examen néew na ci am examen boo defee li la war ba pare dangay nekk ci sa bopp nekk ci sa yittee bopp yàlla mooy may te incha allahu dana la may waaye dafay am ñoo xam ne mën nañoo jàng loolu waaye bu ñu toogee ci examen dañuy tiit balaa examen sax mën nañoo commencé di feebar ci noonu dangay gis nag koo xam ne dafay def examen bac wala BFEM bac bëri na ci bag day def ñeenti yoon juróomi yoon ba sonn mu bàyyi mu def euh, candidat libre rek yaa nga gis yàlla may ko. jamono ba mu daan jàng ñàkk gam daan ñàkk moom la defoon ci xel mi loolu moo tax ñàkk rek lay def secret bi nga xam ne moom lañ leen indil nag tey lii njëriñam mooy fexe ba nit ki la ngay jàng mu mën a des ci sa bopp ndax bu fekkee ne lépp loo jàng fàtte dafa mel ni nga teg lu mel indi rek di ci sotti ndox bëgg ndox mi taxaw du taxaw ndox ci soobu ba nut lañ koy def booy jàng jàng ci xel lañ koy def secret bi ñu leen indil nag. njëriñ li moy lolu kep ko xamne defal nga ko sa dom insha allah rabbihi wala nga defal ko sa bop lépp lo jàng dootoo ko fàtte muk muk muk ci adina wa comme niñ len ko waxe secret bi comme ni ngeen ko gisee bokoy def da ngay bind suratul fatiha mom ngay bind ben yon suratul fatiha ben yon suratul ikhlas ben yon suratul falaqi xulons bi rabbil falaq ñett suratu ixlaas ñeenti yoon nga koy bind suratu falaxe xolons bi rabbi falax nga bind ko ñetti yoon suratu naas nga bind ko ñetti yoon comme ni ngeen ko gisee boo noppee incha allahu rabbi yi da nga koy jël nga def ko saafara ba saafara nag danga koy xaaj da koy xaaj def ko ñaari xaaj benn xaaj bi na nekk xaaj bu ndaw boo xam ne mën nga koo def ci soo bu ndaw loo xam ne da nga ciy naan maanaam juróom-ñaari fan nga ciy naan da ut juróom juróom ñaaru ki ngay ut tandarma dat lañ koy wax ci français juróom ñaar nga ci ut nga boole ko safara bi nga def juróom ñaari fan beut bu set bo xeye bala nga nan wala nga lek dara da ngay nan ci safara bi ñetti guux jël ben tandarma nga sex ba mat juróom ñaari fan benen xaj bi nga xamne mom nga wañi won safara nga koy def safara nga koy def nga ut parfum bo xamne amul alcool man ngeen ut misk kaaba wala nga ut aisha comme bi ngeen gis ni moom ngay wut nga boole ko ak li nga xam ne maanaam moom mooy suufu école ba nga ne moom ngay ut nga sangoo ko incha allahu juróom-ñaari fan moom tamit waaye nag tàndarma yi ngay naan saafara bi ngay naan ba noppi soog di commencé jàngat doo leen defandoo incha allahu rabbi yi képp koo xam ne def nga ko li nga bëgg lépp yàlla dina la ko may ci njàng ba noppi lépp loo jàng incha allahu dootoo ko fàtte waaye nag comme liñ leen waxoon ci suñ njëlbeen di wax moom lañ leen di waxaat te tëjee ko. mooy jàng boo bëggee am examen da ngay jàng luy jàng di maye jàng koy may loo xam ne dañu la ku jàng am li ngay njëkk a def bala ngaa uti ñaan fenn jàngal ba pare man de képp ku jàng ñëw ci man ngir musluwaay bu fekkee jàng lañ la laaj incha allah yàlla dana la may ndagam yàlla mooy may waaye nag képp koo xam ne jàngoo bëgg am boo ñëwee ci man doo am boo ñëwee ci man doo am ndax du ma wax kenn ne ko ñëwal ma defalal la loo xam ne booy defaral la dara ci big day am ñoo xam dañ naan laan indil big bu bees boo ñëwee la ma la ca defal boo koy def am waaye bu fekkee doomam la du ko digal loolu daf naan demal na jàngi ba pare mu soog di ñëw mu jox ko big boobu yéen ñiy jàng jàng leen bu ngeen bëggee am yéen ñiy jàng na ngeen jàng bu fekkee bëgg ngeen a am lii ñuy jàng am sëriñ mënta maye lenn benn examen mënu sëriñ mënu koo maye. sëriñ man naa ut mustuwaay mën naa ut ndimbal ci kuy jàng sëriñ ndimbal la ci kuy jàng waaye ne newul gàllaaj kuy jàng kuy jàng njàngay sa gàllaaj boo bëggee mucc ñi ngi sant ñi ngi gërëm ñi ngi leen ñaan yàlla yàlla yàlla may ñu dégg may ñu topp yàlla yàlla aar ñu sàmm ñu làq ñu fa nga xam ne kuy yàq du fa yegg yàlla mën na ko am na ko yàlla ko yàlla def yaara bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala